Morocco la ilaha illallah. Ilallah ta'ala. Morocco la ilaha illallah. Ilallah ta'ala. Morocco la ilaha illallah. Ilallah ta'ala. Morocco la ilaha illallah. Ilallah ta'ala. Morocco la Ah, fo ala tan jooɗe sungaro naataɗa fo sahengo kay a sujjata na ah, ha ala tan duɓala wol sawo kay ka ɗuma kono doron soro kuddu waɗa mona toje sahen fen tejje sahen ka ɗuma kono doron wotuɗa sahen paɗe le paɗe le fo kabdi watiñuma ma foye nanange ki fa sa ewa siri kolo

lu dee kay warut a ñëwaat. andi la ñu ngi ko moyen de. ah. ah mooy da na suñu ko doon faale. ah rey naa weer ko. ah, ah lu dee kay sango sango nga suñu andi nga nga nga suñu ñu ko moyen cinq mille cinq mille suñu suñu karoo mu kaa faale mu ka suñu karoo faale. fo ne ay ketu ay kata dula dula bari suñu karoo mu nde jabante mo wala jibe kan tele fo man trata nyambe to na ben say ngami ah dala minna dala minna ha na kula ba kula ko ya fa dira dira na ah sungkaro sita na sen sen sen bada min bulo jata tata ji sen sen sen sen ya fa ko ha ngul ko ha ako ala min bakra fa di bulo kon ya di han oke ha problem tara e eh, tari ananda ini mo hada du nyola silokan because yo fo mun ti nek rek setane mum fofu nun ba nga am problème ak kenn ci yoon bi rek waaw Agak jauh. Jauh. Jauh. Kombang ini dia memang kamu semua jam fu ma jëm fu la koy wexej waa booy e booy booy bu gàtt booy bu gàtt taxawal taxawal naxam jàmm rek yaa ngi si jàmm man fooy laa jógee pancek si dëkk kaw ya si jam, waaw wala si wàll waaw dama ñëw fii dama am ku may seet su ma jar baata ñu naan ko Fatoumata Diatta mi ngi sëy si këram laa jëm Fatoumata Diatta ah gis nga kër bi waaw bi waaw bi soo ko rombee waaw booy amaat waaw booy amaat foofu foofu la waaw boo yow bàyyi ni neex ngay wóolu yéen Papa Ndiaye rek nga demoon fii la fële la jaro jëkkëram ne ko oncle ma ziar oncle waaw te soxla la man laa wax bii soo ko rombee waaw booy am waaw booy amaat da woy woy non man damaa génne génne bu ndox may nañu wax léegi ah. waxal ngeen man maa la day rek foofu jërëjëf dégg nga laa ilaha illallah alhamdulilah ci yàlla yàlla du nit de wàcc rek tase ku may woon kër gi lii laa ilaha illallah Jeli La ilallah ta'ala Moroku la Ilallah ta'ala Moroku la ilaha Ini bisa programnya Siapa? Assalamualaikum ganyona Nalañ ko bismillah ki kala ay la ci jamm bismillah alhamdulillah na nga defa coono waaye nijaay waaye yéen combo gi combo gi combo gi da ngay romb di laaj nit sax déedéet fan la duune sax du la faale nijaay yow naka ngay ñëwee naka ngay ñëwee ci jàmbur woo ma oh, sama jëkkër ngay bàyyi dëkk ba du ñëwee noonu dama woote dama woote ba sonu seen téléphone yëpp a pay man lii lan la man man maa war a alu nijaay daal waaye namoon naa la nag Serekunda dafa métti waaye namoon naa la trop yéen si jàmm naka waajee weeru koor bi mbaa sonnuloo si yoon ah sonn naa kay ku ya, eh, ya. la ko waxul rek moom def la ki Alhamdulillah, waaye Alhamdulillah. naa Alhamdulillah. wax dëgg yàlla sonn naa waaye alhamdulilah alhamdulillah waay alhamdulillah laa ilaha illallah ci yàlla ya yàlla rek a man lii de li kay li kay moom amul amul ay firi ndànk fii nii kii ne mooy kan xanaa xam nga loo sama nijaay si dëkkam kii dala fi wuti sax loolu laa bëgg a xam fii kii dala foog naa weeri koor weeri lan weeri koor ñame ngaa woon na ko kii dafa ñëw fii pour weeri koor léegi lan moo tax tàggoo na wala yow lan moo tax wóoloo ma ne ko kii nii dafa waroon ñëw fii pour bii ko mu moo amul xel kon dafa war a toog ba mu war xam ne comme kii léegi oo naa ko jot naa ko war naa dem si kër bi ba pare mu ñëw ni du fii kii nag munu fii dëkk mun kii munu fii dëkk si weer koor léegi am fi wan week wan dal loolu nag xalaatuma ko tey nag day day fanaan suba rek day bu rek day ñibbi ndax nah, nah, gang la wala nekkul gan man fàlliwuma loolu amul comme damay damay wax ci kaw kii nag du fi sufana kii su no problem ding, suba bu xewee rek na ñibbi mu dem loolu nag duma la ko jëlal wala yéen ñaar yëpp yéen ñaar yëpp ngeen beesi ah lii laa doon wax mu tax sama nijaay balaa muy ñëw na dem di yaa ngi toog ko fële. yaa ngi toog yaa ngi toog ko fële tëb maa ngi ñëw am na lu may si gannaaw fi ma ñëw dem. tey nag naaj bi tàng na trop ah c'est ci loolu mi nga boo ñu sunkaroo ko na saa may isi de. wallaay naaji ah? hey hey hey sedd na xol de déet xam nga lii moo tax man ak yow mënuñoo juboo nag xibaar yi moom déet déglu ma déglu ma déglu ma lii moo tax man ak yow mënuñoo juboo lu mel naka since bés boo tegoo fii sa tàgga ba tey mun man ak yow mënuñoo juboo kilifa bi am ni comme ay comme yow lan moo tax ngay naan ndox bi la ilaha illallah xibaar bu ñëw yëguloo ko fan yi la sa ginnaaw am benn dëkk feebar bu fa ñëw di leen daaneel ñoom ñëpp la xaaf bi yëpp la faagaagal rey na ñu bëri fu nekk nii xam nga corona ñu naan ko coronavirus ñëwoon na fi indi na fi lu ne. feebar bii nii ñëw muy ah. waxa man di fen di yëkkati fii loo xam yi nii lu ma laa wax la moo tax ngay naan ndox bi. fii feebar bu ñëw si dëkk bi moo tax ñu ne weeri yi fañ koy xaj koor bi xamul yow yaa ngi xamee télé xamee rajo doo déglu xam luy daw si dëkk bi. ah maanaam da bëgg woon ne at bii amul. yow xale yi sax yëg na ne weeru koor ku nekk ngi gàdde sa mburu di lekk man mu jógee dëkk ba ñëw si kombo gi naa la xew yow yow. yow yaa ngi wax lu leer boo gisee may xamoo ne am na lu xew bànneex bi si dëkk bi xibaar bi waaw rabbil alamin maanaam rajo yi ak télé yi rek da nga ko wax ne comme at bi weer koor am wax nañ ko xibaar bi daal gars yaa ngay bëgg a dee déegi daal lañ bëgg a wàññi moo tax kon pas din yéen bi pas din ko déggoo suñ ko rosida mooy télé do suñ ko rosida kan la booy booy bu gàtt waaw bandi la dana la rey la dana la rey kooku ak maamar nag naaj bi du tàngee ni depuis suba maa ngi toog fii nii naaj combo bi kay fa na dañ koy naaj sax jël bu si kaw ko ko fii dégg la nga tooñaalam lii wala tooñaati ha xaaral ma seet kii si nag def nga lu baax nag bu nekk doon loolu tey waxoon naa ef na ne yow nag doo fi tëdd waaw am nga sans nag weer koor ñu nongo kee sunkaro son o kum maata baakel de ñu naan sunkaro tooñaa skip e non kon naddo wala <laughs> e eh, bisimilahi أقول الحمد لله أقول yow nekk la eh tey kaay nga toog yoo xamuloo li xew nga la tey or loo or xanaa ñu si weeri koor yow weeri koor ñu ne at bi weeri koor amul laa ilaha illallah ñu ne weeri koor amul ungul yow yow nit ñu ngi or nga ne weeri koor amul man sax maa ngi oroon e papam bu ndaw bi nii ku ñëw fii nii gan boobu noonu waaw moo jógee fi léegi léegi léegi léegi léegi dafa génn nii rek moo jógee fi léegi léegi léegi mu ne at bii nii weer koor amul amul kooku du lee kooku du lee or kooku du lee or kooku kooku moo <coughs> ah, lii kay dem na kay lii kay mun loo koo génne waat bi kay bii kay dem na bi kay mun loo koo génne waat yow <coughs> nit yaa ngi woor ne ngaaga nga yow ngaaga nga padi ni sa diggante yàlla titi weeru koor am na titi ak or maa ngi or yow ngay dem naan daf fii ngay at bi kasaliwun ko ah onkul yow kooku daf la sengal suma diggante yàlla ko munoon naa ko rey fii tey kooku kay kooku kay daf la sengal kooku naa ko rey suma diggante soo lii yëpp yaa ko naan naan moom sax moo naan bi yaa sax mu jama tuuti ma tam ma jegali ko onkul eh, soo ko dafa ñëw mu ne la weeru koor amul tey nag du fi fanaan No, yo kay yaakaar naa ko wana du fi fanaan tey nag ungul yo kay lool kay yaa ko def comme bu fanaan nag tey so dama def sa or nii ba pare non ungul ku kay jaru nga def ko dara ku kay deful dara ungul di kay yaa fa tey nag du fanaan tey tey f tey sa papa bu ndaw tey du tey yow yow yow ñu ne la ñu ne la ndox ndox weer koor amul soo nga ah. isturu Uncle yo rin gaga, gaga buntu de Senegal sa yo le ko wara tudde gaga blendi. Yo ya rin gaga blendi nak. So ndo ndo fi foglo ma sa adede ba mo le parce que ya ñu ma gis إلى الله تعالى بارك لا إله إلا الله إلى الله تعالى بارك لا إله إلا الله إلى الله تعالى بارك لا إله إلا الله Ilallahu ta'ala Moroku la ilaha illallah Ilallahu ta'ala Moroku la ilaha illallah Ilallahu ta'ala Moroku la ilaha illallah Ilallahu ta'ala Moroku la ilaha illallah Ilallahu